xam naa ñu mu nommé ñoo xam ne mosu leen a xam mosu leen a gis ci seen compétence la leen nommé ci ay post nag yu am solo waaw kooku valoriser na compétence ñoom maa doon seen patron kenn mënu ma faa wax foofu ku mën kan ñoom kan oo mënoon comme fii la yëf yi mujj kon ça il faut aussi que ñi nga xam ne nag ñooy ñu ma tuddee les docteurs en tout et rien ngay gis koo xam ne romboo kuuru économie mu soo koo romb parce que jox nañ la micro rek naan way c'est-à-dire le FMI le xamool ca la ngay wax dara ñoo fi bëri Sénégal malheureusement c'est comme ça comme bu ñu la joxee kii rek nga am espace ci télé bi rek voilà ça nga naan le FMI ki ku nekk deuxième année d'économie xam nga ne réew ka jiite moo xam premier ministre ba la moo xam ku munti doon ministre des finances ba wala ku munti doon rawat yéggale la président boo jëlee ab décision économique la cay topp presque ay weer yi weer yi weer yi weer da nga ci sonn fàttaliku leen Covid xam nga Covid dafa doon feebar bu ñëw rek dem waaye conséquences économiques yi presque deux trois ans ba léegi sax ci la ñu ne ña seen liggéey yàqu woon ca jamono jooju ba tey am nañ ci ñoo xam ne seen liggéey defarul loolooy économie lu ñuy jàng la nag luy toog rek parce que am nga foofaar nu xam économie man xam naa ko et puis ñi fi nekk ñëpp xam nañ ne buñ ne rapport u FMI du gouvernement bii la ñuy wax dafa fi sii moom ba noppi nag sax lay dëgg te man ma gëm ko mais FMI mais la muy wax du ndoxu zam-zam bu ñu war a naan guuxam ah. ay partenaires rek la ñu am ah. ay partenaires la ñu comme les autres les décisions économiques mais suñu gouvernement yi ñoo ko war ñoo koy jël ñun ñoo koy jël suñu régime ñoo koy jël dañuy d'accord ci yenn yi bañ a ci yenn yi ba noppi nag ami yeneen i yeneen i partenaires et on a FMI FMI FMI alors d'abord il s'adressait pas à ce gouvernement c'est évident parce que mesures yi jëloon ba conséquences yu ñu ne ci boobu xaaju ñoo nekk ci régime ba noppi nag sax ñoom seen parole lu dul ndoxu zam-zam bu ñuy góox di naan kooku suñu suñu suñu responsabilité suñu souveraineté ñun suñu bopp bés bu ñuy ku ñuy jëflanteel nag ak koo manti doon loolu mooy jiitu kon bu fekkee ne da bëgg a politique rek di opposant voilà mais tubaab mooy lan parce que pas parce que ay tubaab la ñu ils ont toujours parce que voilà demewul noonu kon li nga xam ne mooy li war a am te ñu xam ko président Macky Sall toppatoowul woon koom-koomu Sénégal pendant des mois deux années yi ci mujj du looloo ko intéressé woon décision bu mu jël économique moo doon xool ndax lii war naa mën a tax troisième mandat bi yomb ay dépenses yoo xam ne yi amuloon benn productivité ba noppi sax loolu sax topp ko woon parce que ba ma wan ci dàqe opposition tëj diw andi diw euh, reporter élection ca loolu la ne woon kon c'est pas étonnant que ñu ne ci situation bi parce que topp su toppatoo koom-koom bi xaalis ba nga xam ne sax defoon nañ ko plus de mille milliards pour ñi nga xam ne seen liggéey yàqu na ci koom-koom ci Covid bi ñu def ci ñu def ci mille milliards xool leen ni mille milliards toll presque un quart du budget national mais gis ngeen fa mu gis ngeen fan la mujjee ci ay audit yu dul jeex ay scandale yu dul jeex kon loolu mooy li fi ne moo tax dégg naa premier ministre Ousmane Sonko ne ministre finance dina def lu point sur la situation économique mais jot na nag na ko def sénégalais yi dégg lu ñu musula dégg ca la ñuy jommee ñun ñépp nag moo tax ci fi ma bëgg a tëjee ñu war a mobiliser loolu mooy l'urgence de l'heure nee naa saay-saay waxul dëgg waaye yàq nam xel lu nu teg ci lu dul lu amut ñu teggi ko ba mu set teg na le parce que amul wax ak sénégalais yi wax ak ndaw ñi wax ak mag ñi am na ci loo xam ne lii nag du président Bassirou Diomaye Faye moo koy réglé moom président de la république la il est suffisamment occupé waaye ñun ñii politiciens yi te ñu xamante bu baax nag maa ñoom bu baax a baax ak ak ak ñi fi ne xam nañu waa Pastef bu baax ñoom xam nañu. xam nañu waa coalition Diomaye président bu baax xam nañu loolu donc loolu mooy li war a am ñu mobiliser wu wax ak vraiment nos concitoyens wax leen ne yaakaar am na am solo parce que ñoom au fond li ñuy wut mooy démoraliser les Sénégalais loolu la ñuy wut. la ñuy wut te xam na ne mënu ko muy Macky mooy déstabiliser le président déstabiliser les Sénégalais ah comme ça xale yi nañu gën a mën a dem géej ñu naan gis ngeen ñoom mënuñu li am ci expertise masta am ci gouvernement wu Macky maa tey yàlla may nañu ñu am des ressources muy le pétrole et le gaz mooy li ma wax ca njëkk ba ma commencé xale yi na nañu xam ne tey la yaakaar gën a am ci réew mi d'autant plus que nee nañu càcc gi day jeex non seulement càcc gi day jeex mais ña sàccoon alal réew mi danañ ko delloosi kon mën nañu am yaakaar ne il y aura plus de ressources pour le développement kon loolu mooy li nga xam ne moom lanu waxtaan war a waxtaan ak sunu mbokk sénégalais yi ba ñu jox une très large majorité à notre coalition du ñu toog rek nag naan gagné woon nañ 54 pour cent dinañ def plus de déedéet victoire da nga koy liggéey au quotidien wàcc waxtaan ak Sénégalais yi wax leen li nga xam ne mooy le projet pour un Sénégal souverain juste et prospère Sénégalais yi jën jot ce am yaakaar loolu am na solo ba nga xam ne bii nit ñi dinañu comprendre bu baax ne bu nu amee assemblée nationale bu bees tàq bu bokkul ak lii ñu gis di ñaan nag ñu am ci soxna yu am taxawaay am maanaa am xam-xam am base ñoo xam ne ñii ñoo fay ne ak i góor borom kër yu responsable ay jeunes yu responsable ay travailleurs yu responsable yoo xam ne ñoo fay nekk la leen di soxal mooy les l'intérêt général les intérêts des Sénégalais bu ko defee jigéen ñi mën a gën a am yaakaar mën a jël seen tontine ah dañu koy jox suñu doom ñu ñuy dem géej borom kër yi gën a am yaakaar ne seeni doom dinañu mën a dinañ leen mën a wuutu ndax dana am liggéey dana am formation moo tax ñuy appeler la jeunesse aussi ñu taxaw dafa am solo la jeunesse jeunesse nag li koy caractériser mooy da ngay xaw a yàkkamti ñun ñëpp jaar nañ ci waaye nag. ni ko wolof njaay di waxee dara xëyul sotti kon foog ñu laxasaayu jeunesse bi ak femmes yi ak citoyens yi pour am une large majorité à l'Assemblée nationale ndax gis ngeen ñàkk majorité la mu mën a yàq ci réew baaxut te loolu envisagé wuñu ko sax